moom am nañ ko ca Touba yéen a kii abid Walf Quotidien moo ñu ko yëggee turbine ne Touba googee eh, ñu bari ci askanoo ña ngay xuus ña ca des ña ngay ŋàcc am na ñoo xamante ne tàmbale nañoo génn seen kër ndax amatuñu dëkkuwaay ndox maa ko nangu gouvernement bi dafa laaj eh, ci matuwaayamu jëloon ngir xeex inondation ca Touba mbakke yéen a bi abid di laajte ana téeméeri milliards ak juróom fukk yañ fa jotoon xayma ne dañ koy xeexee mbënd mi milliards yooyee mujjee naa dig ci eh, mbënd mi yéen a kii abid xëy duñu dégtal matuwaay yi nga xamante ne premier ministre Amadou ba jëloon na ko fan la matuwaay yooyee féete mu ngi ci yéen a kaabi di euh, turbine yéen a kaabi di l'info mu ngi ñuy dégtal wàccaayu màggalu Tuuba Mbàkke euh, jafe-jafe yi nga xamante ne jot nañ cee euh, duut baaraam ne moo gàllankoor màggal gi ni mel bokk na ci ndoxum Tuuba fes del mbedd ya loole nag Serigne Ousmane mbakke mi yor comité d'organisation bi jot na ko métitlu yéexa soobu ci liggéey ba ngur geek nam waroon a taxawee ba mbënn buy am Tuuba sax du demee ni loole nag lañ ca jur na waxtaan bu yaatu diggante eh, kilifa eh, saytu màggalu Touba Mbacké ak eh, nguur gi yéen a bi di 24 heures xëy dalal ci jawr gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Antoine Félix Diome mi xamle ne la ñu waroon a liggéey ca Touba engagement yaa ngi ca amoon daanaka boo ca jëlee téeméer juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent fukk yaak ñaare yëpp matal nañ ko foofee ca Touba Mbacké yéen a bi di le peuple quotidien génnagul Touba mu ngi ñuy dégtal xalifu Serigne Touba la ko dalee ci Serigne Mouhamed Mouhamadul Moustapha ba ci Serigne Mountakha basiru Mbacké yéen kaa bi xëy duñu ko degtal ci xëtam bu njëkk nañu toppante ba kenn ku ne ci ñoom ak li nga jota béy waar wu yaatu ci Sénégal rawatina ci yoonu Mouride yéen kaa bi di le peuple quotidien moo ñu ko yëggee yéen kaa bi di le mandane ila Touba Khalifa Sall ma nga ca Touba Mbacké jot naa waxtaan ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Serigne bi ñaanal na ko xalal na ko yoon yéen kaa bi di le mandat moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk Walf Quotidien bu ñu deful ndànk du mun a teew ci màggal màggalu ren ji euh, Cheikh Bara Ndiaye ma nga ca kaso ma nga ca pavillon spécial ba ne ca hôpital principal bu Ndakaaru ñu ngi koy faj lottu na lool wér gu yaramam demeetul noonu xiifalu ñaxtu la door ba ba léegi yéen a kaabit Walf Quotidien moom Serigne Bara Ndiaye euh, Cheikh Bara Ndiaye mujjee na génn ca Sowetas gamu newoon yéen a kaabit di euh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal wàllub nationalité bu Karim Wade mi ñu lam-laame ne ñaari nationalité la am benn ba ca des ca France ak Sénégal moom nag conseil constitutionnel moom la ñuy xaar mu lettu ko wala boog mu firiko ndax dina mun a bokk ci élection présidentielle yu 2024 yor-yor gi ne bari na ci ay jegeñaale Ousmane Sonko ñu teg leen loxo ci jamono ji Falla Fleur Ndeye Mati Sarr ak ñan euh, euh, Fatima Zahra Wague Aji Ndaw euh, ba ci Pascaline jata Ami Diatta ak ñeneen ak ñeneen jigéen ñu jàmbaare daroon Ousmane Sonko ci Pastef tey jii système bi moo leen sànq nguurug Macky Sall moo leen tëj lu kaso yéen bi moo ñu ko yëggee réew mi quotidien di ñu dégtal li xew ci réew réewum Sénégal jum kaso gu dul jeex bokk na ci bundu xatal ak fitnaal askan wi salfañe seen ak ak yelleef doon lu metti lool waa F24 ba tax na jot nañoo jébaane nguurug Macky Sall ca ONU waxtaane nañoo ko ñi yilif ONU ci bureau régional bi ngir yeggee leen jafe-jafe yi askan wi di dundu te mu metti lool ci nguurug Macky Sall yéen kaabi di source daj na lu métte métti benoone mu yegg ca États-Unis Salif Balay wuyo jaaykat HLM yéen cabinet yoon la jël wutali bitim réew jaare ko ca Nicaragua waaye nag ba muy wàcc ci aéroport bu États-Unis fa la bakkanam rote ndax coono yu métte métti yoo xamante ne daj na ko ci yoonu yoon wi ba noonee mu yegg ca États-Unis yéen a kabi di l'évidence mu ngi ñuy dëkkal secteur jëm ci wàllu euh, papeterie yi ci Sénégal secteur la gu am gàllankoor lool ndax liggéey ba demeetul noonu euh, production bi wax noppi ña cay liggéey itamit seen payoor demeetu ni yéen a kabi di las ne na mu demee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiant ya wax nañu wax nañook ak euh, recteur ba bokk na ci la soxla mooy fexe ba njàng mu mucc ayib ca googule université Cheikh bu Ndakaaru yéen a moo ñu ko yëggee eh, ci xëtam bu njëkk doomu Ismaïla Lo yéen ne moom lañu toppee mbirum njuuj njaaj ak eh, koppar eh, ca ñu xayma ko mu ëpp daanaka juróom benn fukki million ak yu taftal yéen cabinet di Le Soleil xëy duñu dégtal ponti souvenir la fàttaliku la goo xamante ne daanaka ci taarix mu ñeel ancienne école normale yéen cabinet di Le Soleil moo ñu ko yëggee yéen cabinet di stade mu ngi ñuy yëggee Sadio ci Al Nasri gamu ne defatina fa jaloore dugalaat na bi yéen bi ne ci jamono joo xamante ne moom ak euh, Cristiano Ronaldo ñoo bokk club yéen a bi di suñu làmb xëy duñu dégtal Modou Lo mm, Ama Baldé Tapha Tine Eumeu Sène yéen a bi ne face à face jàkkaarloo goo xamante ne ñu ngi ko war a amal juróom-ñeenti fan ci weeru septembre gi ñu jëm yéen a bi di suñu làmb ne loolee ca Gambie lay amee yem fu ñu jeexalee xëtu yéen a yi tënk la woon dañ ci dikkaat incha na mu gën a yaatoo